tiiti tiiti tiiti man de xamoon naa ne valise boobu bu ko tijjee ndax dama la doon wax pour nga préparer sa bopp nga defen damay caaxaan ah te xanaa xamoon ne góor ñu dee ñëpp jigéen ñee leen rey góor ñu dee ñëpp jigéen ñee leen rey boo demee ci armeel ba góor ñi kese ngay romb ñu leen di suul góor ñi kese ndax lan valise guddi valise guddi yi daal yi ñuy tijji tukkal na wax gis naa ko ah, man teg ko moom teg nañu walis bi moo ki nañu teg walis bi moo naan ko uti naa lii uti naa lii uti naa lii ma wut li ma wut li oh yow mag nga man xam naa ne valise u Ndeye bi xajul ci yow bu ma la koy wax nii dangaa defe woon damay foo say lan moo si indi loolu yëpp léegi ah loolu ay ay ay bagage yu jigéen la ay ay ay kii la ay kile ah, ay kile la léegi jigéen ñi ñoom dañu pare léegi pour yóbbu góor yi laaxira ah fu mu doon nii rek ndey njaay sa bakkan lay laaj kële moom dof na yo yow xam naa ne yow moom bu yeboo lay saw jënd perkaar rek ndax say mbokk moom duñ la gis léegi say bu demee boo jël mm. bakkan ban njëriñ lay am kaaw yaa ko def nag yaa ko def sooy jënd daal da ngay dem seet bu jot sa tànk nga jënd ko